xeex bi buñ ci tollee moom defe naa ñu tudd sax Pastef wala APR wala PDS parce que c'est le citoyen sénégalais qui est menacé kon euh, teewul it organisation bu ne moo xam daayira nga moo xam association sportive ak culturelle nga moo xam parti politique moo xam syndicat nga comme ay mbooloo mi ngi sa biir di nga am loo ci def loolu nag ñun xaaruñu ñu invité ñu fii pour def ko ndax euh, jàpp naa ni bii mbir mi dooree ba léegi euh, mesures yi nga xam ne jël nañ ko jàppoon nañ ni mesures yooyu la waroon jël te wax nañ ko publiquement euh, wax ko ci ay vidéo bind ko euh, ñi nga xam ne it ñi ngi ànd ak ñun jox nañ leen ay ay ay ay ay tegtal pour que mu am lu ñu def distribuer ay produits yoo xam ne pour gel yeeg ñoom seen Euh, sensibiliser nit ñi def port à porte defe naa am na lu ñu ci jot a def waaye li ëpp solo mooy ñu jàpp ni mbir mi kenn warul ci xaar kenn kenn warul yaakaar ni euh, diw la gën a concerné que diw parce que virus la mooy ab mbindaafoon la boo xam ne kenn ci ñun mënu koo gis ci bëtam waaye moo ñu mën ñun ñëpp te ma ngay wër doore na ci yeneen réew faagaak la fa nit ay bakkan yu bëree bari tay Italie ah, egg nañu yenn saa ay 700 morts par jour Espagne sorewul foofu France gis ngeen li fa xew Chine bi mu dooree woon gis ngeen li fa xew dugg si na Sénégal ñu ngi sant yàlla bakkan rotagul may profito di féliciter ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu woowu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu santé amuñu seen fay yàlla rek leen mën a fay ndax condition yi ñuy liggéeyee jafe na waaye gis ngeen taxawaay biñ ci am. Euh, waaye comme dugg si na te day law ñun ñëpp ñu war cee bàyyi xel parce que léeg Sénégal dañoo xaw a mën a neenal te bu mbir amee ole ñu déglu ñi nga xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc ku nekk day wax soo xoolee réseaux sociaux yi soo xoolee truc ñi naan soble dina ko faj xawma laaj ñi naan lii ñi naan laa defe naa mbir day toll am fu mu toll eh, ñi seen xam-xam màcc ci loolu rek lañu ñu war a laaj mooy ñi ko xam médecins yi rawatina virologue yi ak épidémiologistes yi ñom lañu wara déglu ak recommandation OMS yi ñu bàyyi di neena lit japp ni feebaru tubab la mënul dara ci ñun ndax egsi te gis nañ ko demb gis nañu ben musicien bu maga maga mag di nit ku ñul di maddu di mango te bakkanam rod na ci bu lol nak li ñi wax euh, li rafet rafetlu nañ ko euh, bi ñu ñëw nañu andi suñuy gannaaw lu lenn ci liñ jotone def liñu wax demb te yéegal ko Sénégal yi amoon nañ ci ay mbir yoo xam ne jàppoon nañ ni leerul suñu bopp bi ñëwee toog nañu waxtaan ci laaj ci liñ ciy laaj ñu tontu ñu liñ ciy tontu euh, bokk na ci fan la xaalis bi di jóge parce que jamono ju mel nii jamono crise ci àdduna bi yëpp réew moo demoon ci réew bu la daan dimbali boo moytul mu gàntal la parce que am na lu ko doy ñun suñuy réew dañoo néew doole. néew doole gi nag dafa lalu ci lépp dafa law ci lépp ba ci suñu banque centrale gis ngeen banque centrale Europe wala bu États-Unis ay milliards yi milliards la ñu génne ñun suñu banque centrale mënul génne xaalis mu des ñun li ñu war a mën a ut ci suñu bopp li ñu jëlee ko suñu lempo mooy suñu budget la leen ñu dem jéggaani ko mooy leb yi yooyu itam laaj nañ ci ay laaj mu am lu ñu ci waxal ñu dellu siwaat am lu ñu laaj ci lu jëm ci lu war a jàppale sénégalais yi 50 milliards yi jàpp nañ ni dafa xaw a tuuti am na ci waxtaan également ba tënk ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni ma ko waxee ci tubaab bi defe naa jarul ma ci ma koy faram-fàcceewaat yépp ci détail waaye li ma mën a wax rek ci tënk mooy li ma waxtaan ak président Macky Sall mooy lii su ko defee mooy dafa bëgg consensus am ci gestion crise bi consensus bi nag nun xaaruñu lii ñoo ngi ci tànk jàpp nañ ni mesures yi ñu jël mesures yu baax la bu ñu gisee safaan wit amul crise amul ñàkk crise nañ ne lii àdduñu ci wala lii jëmul ci fi war a jëm bu ñu jotee plan bi nga xam ne nag parce que moom démb dafa yéeg le rek waaye plan bi bu ñëwee xanaa am na ministre yu koy togg dinañ ci gën a xuus am na ay propositions yu ñu àndaale woon wax nañ ko ko eh, dinañu xool plan boobu lañ ci war a apprécier bi nañ ko apprécier waaye li ci ëppoon solo mooy won sénégalais yi ni Sénégal moo soxla Sénégal moo woote guerre la ñu nekk guerre du rek ab armée bu ñëw di la song waaye lii ci guerre la bokk kon képp kuy doomu Sénégal da nga war a bàyyi de côté euh, yenn considération yi ñu jàppante ba lii jóge fi leneen lu ci nekk ku nekk dellu fu mu nekkoon